nii nu def def une forte délégation jugee ca dëkk ba ca xam ngeen ni bu nu jugee fii ña nga war a dem ba xel Xelkom am liggéey yu kawe yoo xamante ni ña ngi ko war a taxawale foofa fa tabaarakallaahu bis bii rek indi leen fi te li leen tax ñëw ci bis bii lenn waralu ko lu dul ak mbokk lenn waralu ko lu dul ak kóllëre lenn waralu ko dit lu dul seen diggante ak sëriñ Moustapha mi ak mbokk rek lal ko bokk sëriñ bi tamit lal ko ñoom ñiit li leen sëriñ bi defal nu xam ko lool co dox fenn ci mbedd ba gis ci ñoom ñii kenn koo xamante ni nekk na lu dul leneen leen seen maam nekkoon doo ko gis fenn ci njabootu alaaji sëriñ Gay Badar seen dëkk bee di Badar Gay ku leen fa fekk xam ne ni sëñ Tuubaa bi muy sedd ñëpp sedd fàttewu leen kàggi te moo ko farataak sunna daawu jaaxaane alxaaji sëriñ gi moo jàggi saytaane te moo ko jooy ngir xam ko aqu tuxaati kii la fam rangoo baayu sëriñ Fallu géy moo xam diine kenn dootu mel ne moom ci fonk diine bàyyi si Abdoulaye Laat Géy moo xam diine kenn dootu mel ne moom ci fonk diine bàyyi Saaliwu Géy moo xam diine moo xam diine kenn dootu mel ne moom ci fonk diine baayu basiiru borom alxuraan jamoo xam diine kenn dootu mel ne moom ci fonk diine alxaaji sëriñ Géey moo bëggoon yàlla ak rasuulullaay alxaaji sëriñ Géey sunna ngi jooy ngir xam ko na ñëpp def ñu màggal bàyyi Serigne Fallou Gueye keroog ba demee ca ngan nga ànd ak borom belal Cheikh Abdoulaat keroog la jàmbaar ja naan bu kenn xiif bu kenn mar na ñëpp lekk na ñëpp naan keroog seen baay moo ko tontul ne li nga wax du dëgg ñun mandi nañ ci Seex Ahmadu Bamba kii funta naanuñ keroog la alaaji njuga yëkkati lim bu takkoo mu jël addiya delloo ko njuga naan ko dinaa la dootul delloo keroog la alaaji njuga jël woto jox ne ko seex bamba sebaaja moo la ko jox keroog la seen baay njëkk am oto na ñëpp def nii nu màggal alaaji sëriñ Gueye seex abdoulaye laat seex abdoulaye laat leetar jébbal ko te naan ko alaaji sëriñ Gueye lii dan ma ko yónni ci yow Seex Bamba nee na gërëm na la rasulilaay gërëm na la bur yàlla gërëm na la def ni ñu magal jàmbaar ji alaaji sëriñ Gey keroog la Seex Abdoulaye laat naa ko bur gërëm na la gërëm na Seex Bamba sa gërëm na murit saadex la gis gor te yaatu lewet yaakaari ñëpp la woon alaaji sëriñ géey doo janni doo dërale jërë jëf yàlla na yàlla yokki leeram Cheikh Bamba moom raw na mboolem mbëri mbër du ko dab yoon wa mu jaar kenn du jaarat foofu yàllaaw kuy tëkkali Bamba maamam mbaateem sëriñ moom day xamul baabu ni dafuur ne yàllaaw nasran bi jël nam Seex Bamba ànd ak moom juróom ñetti at yi manqué aslëf dañoo bañ mbar ma yàllaaw looloo waral génne nañ Seex Bamba yóbbu Gabon luñ xam ci lor def ko ngir lor mbar ma yàllaaw te ngeen ko ci nii mu xat lan tey fara buyu jëw nii ba nga xat te lan nam tàng foofee la am ñaari fan yoo xam ni lekku fa bis naanu fa it Seex Bàmba mi moo mën góor ñi yàllaaw am bis fa géej noonu ya ko gaal gi boo fi julee tooñ nga nu boo julliwul tooñ buur bi yàllaaw Cheikh Ibra Fall Ahmadou Fall Seer Njaay maa ngi jégalu wala fol boobu sëñ Saliou mii moo ko def sëñ Saliou yàlla yàlla budda safal di sant bu baax waa koñ bi waa gox bi rawatina waa gox bi ñoom ñëpp ñoom Mohamed euh, ci njiital Mohamed jaw ci njiital Mohamed Diaw mi nga xamante ni moo jiitee daayira yeeg xale yeeg yëpp ak baay Fall yi ndax xam ngeen ni bis bi démb euh, fa tabaarakallaa ci lañ def tàmbaloon bis ba léegi def fi ngontu maam Cheikh Ibrahima Fall def fi ay sikkarulaa yu am solo ànd koog sëñu Moustapha kon sëñ Moustapha nee na waa koñ bi ñëpp mi ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm di ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa yàlla yàlla defal leen jàmm li ngeen di séntu ci wiiw ci biis bi yàlla na ko yàlla defal dañuy maase ñun ñëpp maase jo euh, diglu ki nga xamte te ne mooy Serigne Fallou Gueye bu ko defee mu yëkkati kàddoom di sant bu baax a baax sëñ Jili si mii nga xamante ni day doomi alaaji Muudu Mbàkke si di suñu xarit di sunu lépp moom rakkam Basiiru si daanaka lu nu am ci famille bi rek moom moomu la bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew yëpp di nuyu mbokk taalibe yi fi teew yëpp di nuyu mbokki dëkkandoo yi ci turu sunu kilifa di sëriñ Cheikhouna Gueye mi xalifa alaaji sëriñ Gueye Badar di jël nuyoo bi ak ziar bi di ko teg ci loxo sëriñ Moustapha mi nga xam ni moo woote bis bii jagleel ko kenn ci murit yu mag yi kenn ci murit saadixi muy alaaji sëriñ Gueye Badar sëñ Moustapha njaboot gi yëpp bég nañ sant nañ la gërëm nañ la duma wax miinuñu la ndax nit bu jëfee rek nga xam lim doon xam nañ ni ku baax nga ku bëgg lu baax nga ndax ku bëgg lu baax mooy def lii yàlla def na nag bis bi bi muy wàcc dafa am ndigal lu mu fa fekk lu jóge sëriñ Sidi mu sëñ Abdul Ahad muy tool ya ñuy liggéey sa Daaru Salaam Burki Barga mu jox ci cër bu rëy waa Badar loola waral mu mel nii waaye bu doona loola luy njaboot alaaji Sëriñ Géey muy taalibe muy wóllëre muy lépp dina ñëw fii jàkkaarlu yéen waaye nag mbir mu nekk na ko sunu borom dogale nga koy nangoo kon nanga xam ni njaboot gi yépp la ko tàmbalee sa ka sa mag ba si gën a ndaw ñi ngi jël cant goo xam ni di la ko cant cant goo xam ne fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di la ñaanal suñ borom mi nga xam ni moo tax ngay jëf suñ borom fay la suñ borom sàmm la suñ borom aal suñ borom taxawu la lu kawe sa njor ah kàddu gi délégation bi sëñ bi lim na ko sànq ndax sëñ bi muy ñëw dama booleek ñu baax ñi ma àndal di samay sang di sëriñ Abdul Ahad sëriñ mustafaa ak sëriñ Saaliw ak soxna su Gaawaan mi nga xam ni moom la tuddee soxna su Gaawaan sëriñ Mamadou njaay dañuy wax sànq ni safóoru sëñ bi la waaw ndax noonu lañ ko mën a waxe waaye taalibeem la ndax dafa jaayoon léppam jox ko sëriñ bi tey moom ñu ànd ci délégation bi boo leen déggee tur yi ñu lim ngeen xam ki ngeen tuddee bis bi kan la muy jàmbaar joo xam ni sëriñ Touba rek a ko ñoroon loo leen dégg ni def na ko ci àdduna loo leen ko yéem def gam ko def ak nam ko defee bëgg Serigne Touba rek la ndax moom léppam da ko sóoboon ci Serigne bi dundam lépp mu joxoon ko sëriñ bi ba lim am si njaboot mu wane si cofeelam ci sëriñ bi cheikh Mouhamadul Basir cheikh Mouhamadul Fadal cheikh Abdoul Ahad soxna Astou mii ñu tuddee soxna Astou Gawane mii seereel na ko loo xam ni tey ku xam ndax jëkkati jaaroob loxo jox ko ñu ko médaille la bu may takkal boo xam ni wóor nañ ma boo fekkoon Cheikh Ibra si kaw suuf du la raw ci pas-pasam si bëggam Serigne Touba yamalu woon Serigne Touba ak dara te li ko yàlla mayoon si niñ ko mën a waxe yàkkalu ko ak taalibeem dara mboolem kuñ masa di xoole sëriñ Touba boo ñëwee si moom lu yor jox na la ko wàcc na toog si suuf bàyyi la nga toog ci kaw kon te ni ñu xamee jamono ji nga xam ni nit ku nekk dañuy dégg nit nangam rekk mu jàpp ni moom àgg na waaye moom de lim jàppoon mooy sëriñ Touba rek àgg kon ku man doon di jëfalanteel sëriñ Touba xool si yow sëriñ May géy moo jur Serigne Mor Assa Serigne Mor Assa moo jur Alaaji Serigne Gueye Badar mi ñu guddi gii Serigne Mor moomu jeexoon takk Serigne Modou Moustapha ba bis ba muy ñëw Badar di ko gane si ngan ngoo xam ne tund woowu yëpp keroog sa lañ mas a teg bët lu bokk Serigne Touba mu yandu fa faj aajo ya dimbali nit ña ñëpp jébbalu ci moom sëriñ Fallou Mbacke ñëw na Badar sëriñ Saaliwu sëriñ Abdul Ahad moom daanaka fa la dëkkoon Cheikh Mouhamad Lamine Baara maam ñoom ñëpp làmp bi la ñoon topp ba ci Badar kon yàlla bu defee nga ñëw Badar sa diggante ak sunu rakk sëriñ Saaliwu di diggante bu rafet di diggante bu yaatu waaye diggante bi lépp sëriñ bi rek ko lal ndax li ngeen bokk sëriñ bi la bu doon ak sëriñ bi doon xamante tey toogaay bi nga toog fii mooy la sa maam liggéey sëriñ Touba moom it la baamam ak baayam liggéey sëriñ Touba moo ko may toogaay bii ngeen dem ba yàlla boole leen nga ñëw Badar di dëkk boo xam ni ku am gis-gis boo fa tegee sa tànk di nga gis kenn ku ne nag yaa xam la ngay gis ak noo ko gisee ak noo ko yëgee nga jóge fa woo Serigne Saliou ni ko bis bi may def yëg naa yëg goo xam daal kenn doyu ma sukuru alaaji Serigne Gueye kon loolu lu rëy la si ñoom lu foor la si ñoom bu ñu amoon lu ëpp lii defal la ko ndax tuddeewoo ko ko ngir turwa wa ko ko ngir bëgg xam naa ko da nga ko tuddee ngir yëg si moom Serigne Touba te ñun de képp ku yëg si moom Serigne Touba mënuñu laa fay ndax moom de Serigne bi rek la yëgoon dund na Serigne bi dund goo xam ni. da see demoon ba sago ñu bari buñ gisee barabu Seexul Xaddim bi ni ñu xàjjalee soxna yi ak góor yi keroog ba mu fay taxaw ni lii day dakk dañuy tëj barab bi ñu dem ba sëñ Saaliw barabu sëñ tubaab waruñu koo def barab boo xam day mel dañ fay xawaare keroog ba mu dem sëñ Saaliw sëñ Saaliw wax alal sëñ gi lu mu bëgg nañ ko defee noonu bisub keroog la màndargoo ko ko am taxaw na si biir jumaa ji laata ñu koy miire mu génn gis oto bu gaari si buntu barab mu ni ku moom oto bi ñu ni ko sëñ diw mu taxaw ba mu génn mu ni ko yow de war maaloo sa baay sa baay tëdd fii nga dawal sa oto ba ñëw tiim ko nii war maaloo sa baay loola defu ko woon ngir yenn ngir xam sëriñ bi sër biñ ko war a jox war ma giñ ko war a jox dundam lépp loo leen mës dégg mu def ko xamal ni lu sëriñ bi rekk nekk la ba bis yi mu waan woote yëpp sant sëriñ Tuubaa rek la ko woon defee ndax sëriñ bi da ko defal lu rëy ndax koo xam ni lii nit ñi di wuti wut nga ko ba am ko muy alal nga xëy woo ñëpp ni leen lii kenn ku ne may naa la lang sa yor ngir lan liggéey ji sëriñ Tuubaa te dafay woo ko si lii xew léegi am si tur wala am si alal wala déedéet da doon liggéeyal ji sëriñ tubaa si nit ñi lii sëñ bi wax sànq si faj googoo faj aajo yeeg lépp lim mas a defal ñooñu ñëpp sëriñ tuubaa moo ko ko def la woon moom missionnaire la woon si yoon bi kon sëñ Moustapha cër bi nga ko jox yàlla na la ko suñu mboroom fay fa mu nekk de xolam sedd na si ñun ñii di njabootam gii tamit suñu xol sedd na si xat-xati jamono ak xataayu waxtu yu moo tax waaye kon dinañuy nekk ak yow sa suba ba léegi nekk yow ba bët set waaye ñu ñii fi des ni dañoo war a àgg sa liggéey boobu moo tax mu demee nii waaye daal alaaj sëriñ Gueye de tuddee nga ko bis waaye na la wóor ni ku ko mës a xëyal ku ko mës a defal ku ko mës a yëg di ko gis njariñ la ndax daa àggoon sëriñ bi foo xam ne kum tibbal dootoo xiifati kon yàlla na la tibbal ci barkeem ngërëmu sëriñ bi nga xam ni suñu borom defal na ko si lu yéem jamono ndax boo déggee bëggumay ñëw ci waxtaan yi baatin yi ndax jamono ni mu bindoo la ndax man mii toog tey bu may toog bay man di taxaw du Njaay mii seere la si nii mu jaar nit ñi fii ba nit ñi ni cocc taxaw jaar na fa ak man mii jaar na fa ak ñeneen ñii waaye dañoo bëgg ñu xam ni bëgg sëriñ Touba moo ëpp doole lépp te lépp lu mu def si bëgg sëriñ Touba la ko amee ndax jafe na ku ko daan gis muy bind waxuma bind baaxul jafe na ku ko daan gis muy jafeel boo ñëwee suuf nga koy fekk mu toog ngir taali ga dangay wax ba nag mun la waa baax na waaw baax naa goo baaxal na lu baree baree bari si àdduna kon baaxal googu mu baaxal àdduna baaxal ko jamono ñi ngi tibb di la si ñaanal suñu borom baaxal say mbir sàmm la sàmm njaboot gi bis bi dem ba àgg fu kawe sa njot si barkeb Cheikh Mouhamadul faadal yàlla na la yàlla taxawu taxaw njaboot gi kàddu bi ëppoon na lii ndax sëriñ bi bis bi da koo ñor woo nañu ay yoon nañ ñëw taxaw si bis bi te xam ni bis bi ñor na ko sant na la gërëm na la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 rabbi ahuusu bika min hamasaati sayaatiin wa ahuusu bika rabbi an yahduruun bismillaahi barkib sëriñ si assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara waaye di bu baax kàddu gi ma jël bi nga xamante ni ki nga xamante ni mooy sunu kilifa sëriñ Seexuna tegoon batam ak loxoom ci Cheikh Mouhamadou Fadal ñu ànd koog moom waaye dafa am lu particulier yoo xam ni tamit dafa dox ci sama diggante ak sëñ Moustapha loolee tey moo waral teewaay bi fii ndax mën naa ni barki démb nelaw fa ma jógee itam daw naa lu mat fukki waxtu ak nangam doog ak fa ma dëkk ba tey jii may wax ak yow ci ay midi laa agsi Sénégal nelawuma ndax loolu yow mii rek yàlla ma ko jaral loolu nag mooy li dox sama diggante alaaqa boobu mooy wax ni sama diggante ak yow euh, loolu mënu ko woon a ñàkk bañ a biral ci sama diggante ak yow ci xam tolluwaay bi nga xamante ni tollu nga ma fa ndax amoon naa ngànt lu wér ndax ñaari bis ku ko tegale ne la woo rek am nga ngànt dem kon loolu maa ngi koy seereel bu baax ak doonte xamoon nga koy itam euh, waaye suñu waajur wi tëdd wii nga xamante ni moom lañ tudde bis bi mu mel ni ki nit ki boo ko tuddee bis dana yell lool ci mbooloo ma fa nekk xam kookoy mooy kan moo tax bi sëñ bi bu ma déggee muy wax léegi euh, damaa xaw a yéem ndax moom miinuma ko tam wax ci moom loo xamante ni kenn mënu ko dindi waaye ginnaaw bu mu waxee ni si doo ko ko sax ma ne ah loolu mën a nekk benn itam ci li wax léegi ci ku ko xam ci ak bëgg Sëriñ Tuubaa nga ko xam ba ay waxtu mi mujj euh, yàlla damaa defaloon feex ba lépp loo xam ne ni daan na ko bind ci ay xasida yoo xam da koy tàggee sëriñ bi maa ko sotti ba ci yoon wu mujj wi nga xam daa mujj dem ci sëriñ Saalihu te niiwaa na mu toog ak sëriñ Saalihu te sëriñ Saalihu jëlul kaala gi taf ko ci bët yi ngir di tóol ay xéewal loolu moom niiwaa na mu toog ak sëriñ Saalihu te ko te nag murid Saalihu donc ku mën a defloo sëriñ Saalihu yoon woowee nga xam ne moom la mujjee dem ci sëriñ Saalihu toog di ko tàggu dem Ndakaaru moo ma ko wax ci làmmiñu boppam ndax booba la may binduloo xasida yi ni ma bu noppee sax dañ fay ànd tàggu bi ni ko sàllaaw de boo toogee ba altine ma booy laak taw feex boo toogee ba altine mu booy laak taw ma booy laak taw feex taw feex jooju nag mu def ci ak xasida tuddee ko sammaytuha bi tawfiq loolu xam naa sëñ Sall moom ma koy gën a wattu ci jamono yi ndax booba léegi def na ab diir li ma bëgg a wax ci pas-pasam ci tolluwaayam ci diggante moom ak sëriñ bi beneen bi ci des mooy dégg gi nga xamante ni déggoon na ko sëriñ bi xamoon ko sëriñ sa ci njaareem la ci njaaram la suñu saali ni ko boo toogee ba altine naan ñu boole ak tawfiix xasida ga boobu ci la wax naan tawfiiqu baaqin jaa ani fii jurbeli bi ibni ahmad alxadim al akbari ok loolu mooy béeri la waaye man sax nag daanaka waruma ci woon yëkkati kàddu ndax suñu seew naa ne dama cee génnew ndax dama si musuwaa sa xarit la du mën a fa yebal moo tax mu toog loolu suñ fàll mi na ko dem ci la muy yónnee ci bis yëpp itam moom la ko jox ban fi ne daanaka sax ci lu bari ndax ma yokk si benn ngir ndax koo xam ne jël nag taawam tuddeeloo ko bis bi ñëwaat tam mu jël sama wayu tuddee ko kooku moom ak cantam kenn xamul bu mën a yem gàmmu Badar xatoon na ci moom lool waaye dafa ñëw bi mu dikkee gàmmu si nag la ne fii de yëg naa fi loo xam ni te boobu mu ngi yor kurusam rek di jaam yàlla ku ko xam xamoo ko ci jaam yàlla léegi rek am na ku ma doon waxal muy suñu Omar Sall man ma suñ Moustapha dama koo sopp ndax wax yi ngay wax ci moom ndax fu mu toll rek du tàqu ko kurs fu mu toll rek ni ma sell gi ak yàlla gi ma jaam yàlla moo tax ma sopp maa ngi jéglu bu baax sëñ Saalix eh, fi may tëjee ci moom bëgg gum bëggoon sëriñ bi eh, nga xam ne ni loolu soxna may di wax naan xam naa ne bëgg xaadimu rasulu moo mën a may nit pal gu rëy gum wóolu loolee mooy fen ci jëmmam ba tax xay na sax jataay bii am waaye fi may tëjee kaddu gi nga xamante ni moom laay mujjee wax ci moom ci xasida yi ma ko doon bindal eh, da cee am loo xam da mel ni da ci doon tàggu sëriñ Saalix ndax da caa wax ay bëyit yoo xamante ni teguñu ci ay weer mu génn àdduna ndax daa daa daa taxaw ca way wa daal ni jugal taxaw te wallu nu jugal taxaw te sàllu nu jugal taxaw te tawuñu jébbal nu sangub xat na yi ñu teg ci ñu teg ci ay ay weer rek mu dem kon loolu kon ak tàggatoo la woon loolu nag euh, li tax ma di ko wax mooy euh, pas-pas bu mu tolloon ci digganteem ma sëriñ bi loolu rek moo tax ma bëgg nit ñëpp jariñu ci euh, te di ko ñaanal suñu borom sotti ay yërmandeem foofu mu nekk ak mboolem ña ko fa fekk ak ña ko ñun ñi nga xam ñoo fi des itam di ay taalibe di ak njabootam ak yéen ñi ñu fekk itam ñu yàgg koo dundal te yàgg cee dajak tawféexi sëriñ bi barkib sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou asalaamaaleykum wa rahmatullah bi mu wax sànq rek da lay ubbiwaat ndax bi mu waxee bayit woowu bayit woowu sa teg dafa mel dafa am ko ko laaj kan ngay waxal mun ko kookoo di ahmadul xadim mi jaamu yàlla may xadim ba muriti xarnu yi moo tax bi mu làqoo ñu dem sëñ Saaliw keroog ñu nag suñu waajuroo sëriñ Mortalla Gueye yal yàlla yàlla yokk leeram boobu man moom mi ngoog doy na waar bi ñëwee ba sëñ Saaliw sëñ Saaliw ni ngi fa dugg 9h si suba sëñ Saaliw daan ni nañ xaar ba 4h lañ àgg sëñ Saaliw mu ni ah maa ngi jéggalu sëñ Saaliw yaa ni maa ngi leen di jéggalu kat yëg naa ni yéen a ngi fi woon waaye damaa bëggoon jataay bi mel ni ndax bëgguma kenn raxuñ ni mbaa kenn raxu leen ñu ko déedéet mu ni kóllër gi kat dafa yàgg ndax sëñ Modou Moustapha la woon ak sëñ Mor mu ñëw ba seen waajur ak sëñ Ablaat mu ñëw ba seen waajur ak man mii waaye nag yéen njaboot gii man sëñ Saliou maa leen di ñaan kóllër googu maa ngi koy fasantewaat ak yéen di ñaan ngeen nangul ma ko ni nag na ngeen xam loo leen nekk maa nga ca loo leen nekkul nekkuma ca waaye yéen lu ngeen nekk naa ko yëg sëriñ Saaliwu keroog bi njaboot gi demee di yeesluwaat si moom lii la dénkanteeg ñun ndax euh, ku mel ni sëriñ Saaliwu Touré fi bàyyi ko na suñu borom yokki leeram xam na si lu baree baree bare si diggante alaaji sëriñ Gueye ak sëriñ Saaliwu waaye daal sëñ bi ni ko waxee sànq rek bis bi bisu murit saadix la Euh, murid saadix nga ko jagleel moo tax njaboot gi yëpp nag addiya ji ñu la siyaare xeeb nañ ko lool amoon nañu yéene ju ëpp loolu waaye njaboot gi yëpp ñoo ko ànd jox la ko muy juróom fukki junni ñu siyaare la ko ci bis bi te di la xamal ni xeeb nañ ko lool mënoon nañoo joxe lu ëpp loolu waaye nii ñu la ko waxee rek moo tax kon ñu ñaan suñu borom may ñu fekkaat ko déwén ñu ànd toogaat fii bis bi dem ba àgg ay bisi bis ba suñu borom defal la su kawe sa njort jërëjëf yàlla nañu suñu borom fay. jërëjëf Cheikh Modou Fadal wallaay rafet na lool ca jot na ca jotale na bég nañ bu baax Serigne Moustapha kontaan na lool Serigne Saliou Serigne bi bég na lool Cheikh Modou Mourtala Cheikh Abdoulaye Cheikh Mamadou Fadal sëñ Moustapha kontaan na soxna Sugaawan sëriñ bi kontaan na bu baax a baax seen waajur ku baax la woon nii ko sëñ Moustapha waxee noonu rekk la demee ak jànkat yeeg ñëpp rek benn la eh, doy na rek soxna si mu jël rek tudde ko soxna su gaawaan ca ku xamoon soxna su gaawaan rek ci melokaanam ak soxna su gaawaan ni mu meloon ak diggante njabootu sëñ Touba ñi bokkuleen sëñ Touba ku ci mel ni Cheikh Abdoulaye Lahat ni soxna su gaawaan meloon ak moom Cheikh Abdoul Khadir ndax soxna su gaawaan man lu ma doon gone gone rek fekk naa ci moom dara lu tuuti tuuti ndax jërëjëf sëñ Bamba ji Daaru Jaañ daan wax da ko daan wax Daaru Jaañ nag ku xam ko sëñ Abdou Khadir xaw ma nag ku xamul ko sëñ Abdou waaye man xam naa Daaru Jaañ man ak ak bas ak bas daan na ànd ak ñoom nuy dem ci soxna su gaawaan soxna si doonoon ko fonkoon kafe sëriñ bi eh, mi ngi beral nuyoo bu baax a baax rakkam ju tedd jii di sëñ Abdou Lahat PDC sëñ Abdou si mii nga xamante ni fa tabaarakallaahu moom it jërëjëf jërëjëf yaay boy moo tax euh, bis bi li ma wax sëñ Moussa géey bi ma toogee moom dama ni ko tuddee gi ma tuddee alaaji sëriñ Gueye bis bi maanaam mbegte ngeen ci am rek moom laa ci am ndax moom dama koy xoolee bëtub waay jóg dama koy xoolee bëtub waajur di ko di ko yëg tamit di ko yëg di yëg ci moom ak waajur ma ne ko nag moo tax mbégte moomu moo taxoon moo doon def ku ma xam rek koo xam ne El Hadj Serigne Gueye moo la meññi moo doon def yitte di dem ci yow toog ak yow waxalal la sama bokk bis bi loolu loolu laa ci façon mbégte moomu rek la. alaaji sëriñ nag li tax ma tuddee ko bés bi maanaam du lenn rek lu dul damay jàngee ci moom ak taalibe dama dégg ci moom ay jaar-jaaram ay jëfam ay mayam jikkoom doxinam ak taalibeem loole doy ma sëkk nag ndax man mën naa bañ a baax de waaye xam naa ko baax moom xam naa ni ku baax la ku murid saadix la woon te loolu njaboot gi ma xam dong rek ak nañuy doxee jàngale noonu loolu dëgg dëggal na loolu ndax man mën naa ñaaw mën naa ñàkkum xaalis waaye ñàkkuma fayda ñàkkuma fit ñaari moom defuma ko ñàkkumaa xamit sama bopp su ma jëlee sama sama sama sama tànk tuddee ko doomi alaaj sëriñ Gueye bëgg gu ma bëgg alaaj sëriñ Gueye tax ndax tey dama gëm ni lépp lu nekk ci yéen rek moo ko def ci yéen nu ngeen mel rek moom la moom la melokaanam la loolu la si suñu Moussa na wax keroog mu ne ma moom dane ma aw amuñu fay alaaji Sëriñ Gueye ndax jamono jii ni mu mel ak nit ñu def bul toon moom dina ñaaw moo ma wax te loolu ma xam ko bu wér kon sëñ Saaliwu xam na ma xam àndewu ma moom lenn loolu ak cofeel gu ma ko ëmbal mu ëmbal ma ko rek bëgg gu ma ko bëgg mu bëgg ma rek respect bu ma ko jox mu delloo ma ko rek ñu séq lu bari nag mën naa ni jamono ji ñu toll ku ma gën a jege jamono ji ñi alaaj si ñi sëñ Saaliw mii fi mu ne yaakaar naa yombul te gis de koo xam ne bis bu set bis bu set ngeen déggante ay yooni yooni yoon mooy sëñ Saliou bi maanaam bis bu set dangeen déggante ay yooni yooni yoon maanaam mën ngaa déggante ak moom ci bis bi juróom-ñaari yoon ba fukki yoon kon nag kooku yàlla boole na leen lu ngeen mënta séddoo kon nag njabootu alaaji sëriñ Gueye gi ñoom ñëpp ñi laa demee ñoom ñëpp mënu bëgguma lim waaye ñëpp rek kenn ku ci nekk rek muy soxna yi muy muy muy góor yàlla yi ñoom ñëpp lii laa xam ci ñoom lii laa séq ak ñoom waaye buñ tuddee sëñ saaliw rek day yóbbaale ñëpp may ñaan nag bis bii liñ ci am ci ay anwaar yépp yàlla na fekk alaaji sëriñ Gueye fa mu tëdd ndax jàng nañ fi fukki kaamil ak ñaar bu ma juumul def ko li mu at mi ñaanal nañ ko ci bu baax ñaanal nañ ci itam njabootu koñ bi yëpp ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñëw wéy ci seen borom ndax loolu lañ koy defee at mu jot fasal nañ ci mbooleem way dawlu yëpp waaye daal sama xol sedd na ci njabootu balaaji sëriñ Gueye gi ci jiital sëriñ Seexuna ndax moom déggante nañ fi ci ay yoon yoon ci bis bi muy wane mbégte mu ci am njabootam gépp nag noonu noonu rek sëñ ba ci sëñ fàllu mi kon nag maa ngi ñaan yàlla suma ma ak yéen yàlla na gën a yàgg te dana yàgg incha allah ndax kóllëre ak lislaam rek la lislaam rek moo ko lal sëriñ seex Cheikh Abdou sama xarit moom itam mu ngi fi sëriñ Moustapha nag dafay spécial ci man man su ma ko gisee sama xarit laa koy woowee loolu nag ku ma koy woowee rek dëgg na ci man man mën naa la wax sama waay saa waay ji waaye sama xarit moom bu ma ko waxee rek am na fu ma teg xaritoo naa la te moom sama xarit rek laa koy waxee léegi rek moo ci mucc te li mu wax loolu mooy waral ni sa mooy wane ni ku ma jàpp la ndax voyage ñi mu méttee nga nekk ci avion yi dix heures de temps wala yu mel noonu wàcc Sénégal sa xel nekkul ci ñalaw nekkul ci doxe sa yitte nga bàyyi sa yitte ñëw ñëw ci bis bi kon kooku ku la xaritawul ak ku la jàppul ak ku la fonkul lu ko def kon suñu soit kontaan naa lool kontaan naa lool suñu saaliwu waaw c'est normal parce que man dama laa sopp lépp loo def rek neex na ma waaw nee na ma sama ñaw bi ci moom laa ko photocopier loolu la wax léegi waaye nag yaakaar naa maa ko dàqale waaw waaw <laughs> waaye daal sëñ Saliou moom daal xam naa ne mën naa tooñ waaye nag eh, waxan dëgg ndax damaa ñëw ci gàmmu badar gi ah. waaw dëgg la waaw dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan suñ <laughs> saali bul ma dajji waay déggal nee na <laughs> ay déggal ak alxuraan wax na dëgg noonu la demee cofeel gi dafa am loolu ci ñëpp la njabootu ci yéen gépp rek ñi nga ñi ngeen ci xam ñëpp noonu leen leen bëggee sëñ Basiru noonu la mel fi ne fu ñu la gis tudd ko fu ñu ko gis tudd la vraiment loolu nag sax mbaax rek la ak mbaaxu mbadar gépp rek dégg nañ ci lool waaye alaaji sëriñ gii daal li ma la mën a xamal mooy xam leen ni ëppale woo leen ma ci gënoo leen ma ko fonk gënoo leen ma ko bëgg loolu moom wax naa ko ci biti wax naa ko ci biir lii moo ci desoon nag maa bëgg mu jël ko ci ci ci ci ci ci écran bi Tawfekh Production la maa bëgg mu jël ko bis bi dama cee barkeeloo lépp ji sëriñ Gueye bi ma demee Badar Tawfekh Production bi laa fekk damaa wax suñu saal na ko na ñëw lépp lépp badar laa bëgg mu doon ko n'est-ce pas production moo ko nekkoon moom laa jël ne ko ñëwal ba ma ñëwee li ma fekk nga sañse ko itam daa rafet ma ne ko ki la jaay yow tisi ki jaay moom laa woon ne ko jaay ma tisi waaw damay wax mu leer rek man aw ma problème man li man man li man li muy yitteel rek mooy naay lekk ba suur jaam xaas de sañse di xeeñ bu neex jeex na waaye ay ci moom garaaw ki la ki la jaay tisi bi ma ma ko jaay ñaw bay daa rafet dama ko roy xanaa sa xol sedd na <laughs> jërëjëf Guèye sama xol sedd na lool xam naa ni jot amul ndax ni nga ko waxee rek noonu la deme ku ne xam na ni ay dañuy ay jàmbaar ci ci ci tooli sëriñ bi loolu moo waral ngeen am cër boobu ngeen am xelkom te muy bisub tey jii waaye nag fonk ngeen fonk bis bi moo tax ngeen dagg ci seen cër ci njaboot gi ñu ñëw teew si waaye xam naa ni sax du jot gi ndax sëñ fàllu mi bu fi jógee nee na ma bu fi dem xel kom ndax tey jii lañ dem xel kom ñoom ca liggéey ba kon def ngeen yitte ju rëy rëy ci seen teew kon xam naa ni amu leen jot fi mu ne ci loolu rek ngeen ne kon nag lii ngeen def rëy ci man lool macha allah rabbuna addiye jooju nga xam ne tamit teg nañ sama loxo rëy na ci man sama xol sedd na ci maa ngi ñaan maa ngi ñaan nga fi teewee yàgg na te boobu ba yaa ngi toog sama xol sedd na ci yow maa ngi lay sant te di la gërëm ci teewaay bi njabootu sëñ Malick Bassène gi moom jëru may tudd di lim ñëpp képp ku sant si ku fi teew sama xol sedd na ci yow maa ngi lay ñaan lépp lu am ci bis bi yàlla ñu ko bokk sama soxna soxna Astu Mbàkke moom itam mu ngi fi macha allah euh, maa ngi doon xaw a kii sax inquiété ci yéex gi nga yéex a dugg ci baas bi waaye bu ma la gisee rek nee naa ni yàqoo sa temps ndax sañse bi macha allah waaw kon nag sama xol sedd na ci noonu la mbir ma demee waa suñu saali yow moom da ngay sànni xel waaye <laughs> garaawul kon nag mu ngoog loolooy kàddu yi sant naa ñëpp sama yaay moom jël bu may wax ci moom sant naa ko gërëm naa ko waaye daal sama xol sedd na lii may wax nag nekkul ni liggéey bi daa jeex jàng yi jeexul de maa ngi fii toog jàngkat yaa ngi nii toog fii laay toog incha allah rabbi di déglu jàng yi ba ba lépp di doog a jeex ndax jàng yi moom ku ne xam ni euh, jàngi jàngkat la moo tax man damay déglu jàngkat yi moo tax may déglu jàngkat yi sëriñ Amza Diop sëriñ Amzatu tabaarakallaahu sama xol sedd na suñu dëkk sama dëkkandoo nga waaye yaa ngi koy doxal yaa ngi koy dundal macha allah sa teewaay wane na ko kon nag bëgguma lim waaye daal sama xol seet na ñi ma bëgg a tudd ñëpp mënu ma leen tudd waaye nag sama xol àgg na ci ñëpp te sëñ Jili balaa wala sëñ Modou waaw xam naa ni kaddu gu gàtt lay doon Cheikh Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi am mbégte lool ci jëf jure ji nga xam ni moom nga jëfal waa kër alxaaji sëriñ Géey maa ngi nuyu bu baax sëriñ Saliou Géey Badar mu baax mi toog nga xam ni moom melokaan wi mu mel ak mbaax gi nekk ci moom ak yoonu murit ni mu ko ñoree ak ni mu bëggee Sëriñ Tuubaa nga xam ni moom xalimaam du jub mukk ci këyit wi di taalif jëm ci yoon wi waaye jëm ci njabootu Sëriñ Tuubaa moo tax lii Seex mu Mustafaa def muy mag ñi nga xam ni ñoo àndoon ak Sëriñ Tuubaa lii dafa war a bari ci yoon wi ni mu war a bare mooy kenn ku ci nekk ci yéen nawloo na moroom ndax ku ci nekk ci yéen rek sëriñ Touba defal sa maam moo tax Cheikh Moustapha li la sëriñ Saliou seedeel doy na sëkk ci mbaax laa la xam ci civilisation waaye ci bëgg sa bopp ba noppi nag jaamu yàlla ki nga xam ni nii ngay doxe ak melokaan wii ak ak nii nga mel mbaax rekk ko waral ñun nag ñu ngi jégglu bu baax ci yeex gi ñu yeex tab bi ndax ñu nga woon ci sëñ Basiiru moom Cheikh Abdul Xaadir Cheikh Sidi Maxtaar la doon def avant première bi waaye bi ñuy ñëwee ba ci yoon wi nag oto bi crevé moo waral ñu yeexe yegg si waaye yow loo nekk rek danañ ci nekk ak yow moo tax bay euh, sëriñ du mbakki si bi ma nekku ci yow laa jëm si mu yëbbante ma ay kaddu cant ni ma boo demee de na nga ma nuyul Cheikh Moustapha te teewal ma fa ndax dafay dafay bàyyi boo xam ni keroog bi mu jàkkaarloog man ca tuddub sëñ Basiru Siba ma jox ko loxo la ni ma de conseil yi ma lay jox de mosuma ko jox gone goo xam ni mi ngi wax ci yoon wi waaye diglu naa la dégg la moo tax ma lay conseil yi di la dénk ni fi nga teg sa tànk foofu la te ko xam sëñ Modou Mbacke si xam ko ci dëggu xam ko itam ci xam boppam kon sëriñ Serigne Saliou lii mënuma ko bañ a yëkkati ndax njabootu alxaaji Serigne Gueye yow rek laa ci xam yow it la miin waaye sëriñ Fallu yitam kaddu gi mu yëkkati itam rafet na ñu ngi ñaan teraanga ji yàlla na ngeen ko yàgg lebalente ndax Cheikh Modou Lamine wax na ko léegi tudd na fi soxna su gaawaan te diggante soxna su gaawaan ak Cheikh Abdoulaye teg sëriñ Saliou nga xam ni ca mburaake maag siddéem saak soccu yaag yooya ku xam soxna su gaawaan danga xam ni moom ku dondoon sëriñ Tuubaa la bëggoon xasida si sindi di lool daan faj aajo ci lu gaaw ndax moom da doon sëriñ Tuuba ndax man gis naa soxna soo xam ni soxna su gaawaan a ko yar waaye bu lay wax ci soxna su gaawaan da ngay xam ni doomi sëriñ Tuuba la joo xam ni baatin ba jige woon na ko lool moo tax mu Moustapha bég nunu mbég moo xam ni baas bii yàlla na nga ko yàgg woote lii nga def nag defal ko njabootu alaaji sëriñ gi defal ko sa àndandoo yu baax yii ba tey jii sëriñ Saliou mën a jël ay kaddu nga ni yow ci sa bopp mu mbubbi yaa ngi ko jëndee foo mu ko jëndee kenn ku ci nekk di wax sa morom daamine bi nekk ci yow loolu mbaax la moo tax nii ngeen di doxee moo yoon kenn ku ci nekk na def boppam ni moroomam ndax sëriñ Tuubaa moom noppi na ci ñépp te tubaab Tuubaa dimbali ñëpp kon nag lii yal na yàgg Cheikh Modou lamit maa ngi lay nuyu yàq yow sama rakk nga te bi mu ñuy fekk la itam nga yor wax gaay ji bég naa ci lool ndax man ak yow ak Serigne Saliou sekk barki démb rek la ñu jóge Abidjan ci bisu Garam ba bisu Serigne Touba ba te it bu ma la fekkee fii xam naa ni lii may def itam man nga ko te itam yaa ngi ci bay sawaar may ñaan nag mouvement boobu nag nga bañ ci génn te xam ni boo ci bàyyee rek du baax ndax yaa doon secrétaire bi seex Abdou Khadir maa ngi lay nuyu di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay itam di nuyu mboolem ñiy jàng xasida ak mboolem ñi nga xam ni itam ñu ngi ci jotaay bi ñoom ñëpp ma nuyu leen jox leen seen wàccuwaay ndax mënuma woon a bañ a yëkkati ci bisu Cheikh Moustapha ndax Cheikh Moustapha ak sëñ Bassirou si def naa émission ci sëñ Mor Xadi ak sëñ Malick Basir émission boo xam ne ku dugg ci télévision ci internet bi danga gis danga xam kan mooy sëñ Malick Basir ak sëñ Mor Xadi te boo ne jàkk sëñ Malick Basir nii ci photo bii danga xam ni kii nitu yàlla la borom cër la da xam ni kii làq na gërëmal sëriñ Tuuba yéen nag ay sëriñ ngeen te sëriñ nag ak këriñ ak fëriñ danoo nduroo waaye du benn bi ma jaaree ci Cheikh Moustapha Ndiaye al Karim nga xam ni falaa xéewloo bi may ñëw maa ngi ko fekk ñu koy perviser waaye li doon pos-posam mooy ñëw itam ci sa bis soxna Karo mii nga xam ni itam moom nga ko mare ne keroog bi may def yëgle bi maag moom ñoo toog waaye tey jii dafa waaj bay bëgg a ñëw mu ni ma Modou dan maa agressé ma ne ko musiba dal na la de ma ne ko li xew mu ni ma taxi bi ma dugg daal la waa ji ñëw rek ubbi ko wax ma lu ñaaw ni ma téléphone bi muy iPhone boo xam ni sëñ baa ku jënd loolu lu tollook million ak lu teg muy soxna karo waaye bi muy ñëw leen ma daal ba àkkee waxal ma ko Cheikh Moustapha woo na ma ci beneen numéro ba wax dëgg yàlla métti lu nu ko lool wax dëgg yàlla sëñ Saliou xam naa ni loolu dong moo doon ngànt li waaye ñu bàyyi kaddu bi ak Cheikh Abdoul Khadr loolu mooy cat li di dara ci suñ Tuubaa ñoo ngi nuyu bu baax njabootu bàyyi sëriñ gi fi teew ñoom sëñ Saliou ak magam yu baax yi jotaay bi suñ Tuubaa noppoon na ci bu yàgg ca mag mi moo waral tey jii li am ci kër googu ak kër gi suñ Tuubaa noppi na ci lépp dañuy répété rek kon yàlla diggante bi gën a sax te rafet ci dara suñu Tuuba man nag li ma ciy wax du bari ndax kër suñu moom suñu moom bu nu xewlee man toog séeréer rek déglu moo ma ci war ndax dama cee bokk ci kër gi laa bokk ndax li li bàyyi seen ji li ma waxtu wu ne rek yow da ngay taara bi ba noppi ci kër gi doom ci kër gi loolu la noonu la mbir yi demee kon kaddu yi kaddu jant la ñu ko di jëlee seen njiit rek war koo jox suñu Moustapha mi teraanga ju ne seq naa ko ak moom ci àdduna bu rafet du nekk dund nañ ko ndax li ma jàngee ba noppi ba war a dugg ci ab yëngu damaa woo téléphone loolu yàgg na ci jamono 2012 ne ma foo mën a nekk rek na nga ñëw ma jox la fi ma doon jàngalee la ma fa for nga continuer di ko for ndax man damaa war a dem si Abdourahmane Daaru Muxti dolli war sama njàng ma jóge fa ma newoon ñëw mu ànd ak man dafa ma doon jàngalee ba ma ne mat kam doon jàngal yor bu dee ma may fay te daa nga jóge séq naa ko ak moom ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mënu ko wax te loolu it suñ tuwaa noppoon na ci bu yàgg ndax man lu ma am rek suñ moo suñ maa gi la ndax man sama bàyyi naxu ma lóorewu ma daal naxu ma li ma amee juróom-ñaari at bi amee juróom-ñaari daa xam li may jëriñ àddina ak àllaaxira mu teg ma ci muy fam woon moom ba am lim am mu teg ma fa ba mu am lim am moo tax moom lay tàmbalee moom lay tëje ndax li ma boole kër sëñ Malick Bassine si ak suñu moroxati si bu gàtt la rek man sama maam kokki la jóge woon ànd ak rakkam war ay fasam ñu war seeni fas ñëw Saalum daan faji aajo ba noppi xamoon suuf xamoon fu ñu war a dëkk biñ ñëwee ñu tëdd ba guddi biñ tëddee ba guddi kenn ku ne gis li ngay gis bi ñu yewoo kenn ku ne jug jëm ci sa morom di ko wax lim gis ñu daje biñ dajee eh, sama maam di njëkk wax rakkam ni ko biig damaa gis ak leer ci soowu bi mu ne ko loolu laa doon xibaar si ñu war seeni fas dem kuraamu rek fekk fa sañ Mor Xadi Si bañ demee sëñ Mourou Khadis si wax leen ni leen mu wax ki jur sama sama yaay ni ko ki jur ki jur sama yaay ni ko sëñ Tuubaa man la la booleel wax ki jur ki jur sama papa ni ko ki waaw ki jur ki jur sama yaay la wax ni ko yow suñ Tuubaa suñ Basiru mu sëñ Tuubaa la la booleel ki jur ki jur sama yaay ni ko yow sëñ Tuubaa man la la booleel moo tax sama wàllu waajur di waa ko sëñ Muntaxa sama wàllu yaay sama maam waaye sama wàllu papa di waa ko sëñ Mourou Khadis ak sëñ Malick Bassine loolu mbirum suñ Tuubaa ci lu leer nag loolu moo ngi dugal ci kër gi sama bàyyi tërbiyu fa liggéey fa ba suñ Maxtaar Mariam mi naa fari jumaay Tuubaa ñaar fukki ak ak ak nangam ba suñ Fallu jox ko doomam ne ko mag yow ak loo am baal jana loolu mooy suñ soobu ci kër gi kër gi nag jaxasoo fi nga suñ jiili rakkam di soxna Fatou Diop sama bàyyi moo ko doon denc mu ngi koy wax soxna Fatou soxna Fatou moo tax may bi ci kër gi te doom ci kër gi loolu nag day mat di leeral bu baax waaye man moom wax dëgg yàlla sëñ ma sëñ Malick mënuma leen tudd ñetti yooni tegle ta tàggoom ak sama sago ngir li ñu def ci man ndax ki la jàngal alxuraan ba nga wattu ko bind ko ak njabootam defal la loolu ëlbatiku may la soxona ëlbatiku may la kër ñooñu buñ ne laa ëllëg danga dem àjjana war nga ko gëm ci àddina ndax fii ku ne fi mënul dara rek ëllëg jërë jëree su la wax kon man fu ñu wootee sëñ Maodo sëñ Malick rek damay ñëw toog sérieux di déglu gaañi rek yëf yi neex ba mu jeex ndax man dama dama jeex tàkk ci kër gi damaa jeex tàkk ci kër gi loolu la yàlla dogal ak tey batan waaye saxal fa mbàkke gis naa la ngay bëgg ni su fi mel ni uway sun waaye toogal mbàkke gis naa la ngay bëgg ni roog bi gànnaar nga jëm waaye yoral soodaani gis naa la ngay bëgg ni roog bi daani gànnaar nga jëm waaye yoral soodaani gis naa la ngay bëgg ni roog bi daani gànnaar nga jëm waaye yoral soodaani xutbu samaani nga yoral bi xarnoo fonkal sëriñ Mbàkke te fonku jarnoo قوس زماننا قوس زماننا قوس زماننا دي خدم الأولياء دي خادم رسول خير الأنبياء قوس زماننا دي خدم الأولياء دي خادم رسول خير الأنبياء صلى وسلم عليه الله صلى وسلم عليه الله في العالي وصاب الأعلام صلى وسلم عليه الله في الآل والصحاب ومن والاه keroog la del si kër nijaayam xibaar ko waxtaan wa mu mel ni biyaaram keroog na jaayam bég na mbég moo xam ne mënee su ko xibaar bi xayri may ni tanal ko loolo tanal ko loolo tanal ko loolo waraloon mënaa la takku jël sëriñ muxtaaru li ma xadd naa la Mor Khady wa Cheikh Malick Basin ku sopp sëñ Mor Khady mbaa nga sopp sëriñ Malick Basin nel ni baaraam nu màggal leen Cheikh Mor Khady wa Cheikh Malick Mbassine Cheikh Mor Khady wa Cheikh Malick Mbassine Cheikh Mor Khady wa Cheikh Malick Mbassine ki leen mooy aji xam la Mbassine ñi ñaari gaay ku leen xamoon ñi ñaari gaay ku leen xamoon ñii ñaari gaay ku leen xamoon màggal leen liñ def ci diine rey na loolu sargal leen ñoo yi wayiw sellu te gëm seex bamba ñoo yi wayiw sellu te gëm seex bamba kuñ masam jox nañ ko seexu bamba ñoo yi wayiw sellu te gëm seex bamba kuñ masam jox nañ ko seexu bamba ñoo yi wayiw sellu te gëm seex bamba kuñ masaam jox nañ ko sëñ xu bamba ñooy wayu ku sopp sëñ maar xadisi mbaa sopp sëñ maalik mbaa si ne màggal leen ñooy wayu sellu te gëm seex bamba kuñ masaam jox nañ ko xu bamba daananu dem daananu dem di digle topp yàlla sin dund googa kañ ko jox mooy yàlla daananu dem daananu dem daananu dem di digle topp kañ ko jox mooy yàlla daananu dem di digle topp yàlla kañ ko jox mooy yàlla ñoo ñoo sanc ndaam ak man ak daaru salaam ñoo sanc silkura murit fa bàyyi daam ñoo sanc ndaam ak man ak daaru salaam ñoo sanc ndaam ak man ak daaru salaam ñoo sanc silkura murit ngir sopp daam ñoo sanc ndaam ak man ak daaru salaam ñu sañ ci silkura murit ngir soppu daam busra ci la ci kin ci la ak mbaabaan daaru kungeel daaru nayim ak bustaan busra ci la ci kin ci la ak mbaabaan busra ci la ci kin ci la ak mbaabaan busra ci la ku ma soppal sëriñ moor xadisi mbaa nga sopp sëñ Malick Basin neel nii nu màggal leen ñoo sanc ndaam ak man ak daaru salaam ñoo sanc sin kuraam rit ngir sopp daam ñoo sanc ndaam ak man ak daaru salaam ñoo sanc sin kuraam cekken ci lang baabaan daaru Koungheul daaru Naim ak bustaan ñooy bàyyi Sidi Aliyun jëntub teen maami Cheikh Moussa si moo baax ñooy bàyyi Sidi Aliyun jëntub teen bu nee na taw mu daal di taw wóor na ci yéen ñooy bàyyi siidi aliyun jëntub ceyeen bu neena taw mu daldi taw wóor na ceyeen ñuy bàyyi siixu musa xasiida si démba mooma wuute naak marida ñooy bàyyi siixu musa si démb mooma wute naag mari daa muy tawfeex ju rëy